asalaamaaleykum cher internaute euh, donc euh, yéen a ngi si géej Guédiawaye info point com comme niñ koy defee saa su ne donc tey ñu ngi fii nii Darou Rahman 2 au niveau de Guédiawaye koñu dex gi seet si benn groupe boo xam ne tey dinañ waxtaan ak moom muy waa Fësër Raad. ñu ñëw seet si internaute yi Guédiawaye info donc euh, ñu ngi nii dans l' émission euh, xoole artiste tey ñu ngi Darou Rahmane 2 au niveau du bassin bi en face bassin bi xoole ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Fësër Raad donc muy groupe boo xam ne mu ngi dans l' underground mais di def job bi nga xam ne job bu job bu job bu naturel la job bu efficace donc tey ñu seet leen pour waxtaan ak ñoom seen différence projet yi ñu ma bàyyi sama gars yi ñu nuyoo salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam waaw a am seen euh, xarit seen broda Al from Fossil Right, Géejawaay représenté waaw tay ñu ngi dalal fi suñu gan yi wa Géejawaay info xam nga fi ni au niveau de Géejawaay ci bassin de rétention bi comme niko gaay xamé ko ñu dex gi quoi pour wara mëna yaatal projet yi. Ya def ko fa. salam salaamaaleykum ñoo ngi bëggee bépp auditeur bu Géejawaay info ah. di leen ziar na leen marhaban quoi. Wa tay sama première question moy euh, tay bu ñu waxee Fossil Ride c'est quoi Fossil Right? lan moy Fossil Right? bon en fait Fossil Right kii la quoi c'est-à-dire c'est benn moowu olof benn moo la bi nga xam dafa composé wu benn moowu olof ak ben moowu anglais c'est-à-dire fësal moowu olof la moy rendre visible quelque chose c'est-à-dire wane benn affaire pour mu visible c'est-à-dire lu fi nek la quoi mais ñu woné ko ba nit ñi gën ko gis right mooy moowu anglais la moy deug quoi c'est-à-dire la vérité mais puisque ñun li ñu def c'est de l'expression orale c'est-à-dire wax la quoi ci wax lañuy liggé légui on va dire que ne fësal right c'est tout simplement dire la vérité mais avec la manière aussi quoi c'est-à-dire bañ ci diwante pommade

ay génnee ay projet yi nga xam ne nii gars yi génnee nañ ko ay compilation lay nekk mais projet bu officiel Feu Ride amagu ko te actuellement ni yaakaar naa ni pare na sax mu génn moo ci des quoi ci loolu la ñu nekk quoi mais game bi yaakaar naa bëri na ñi nga xam ne dootuñu leen présenter Feu Ride quoi Wow, tay Lamine, bu ma laaj aussi, on a vu que Fesseur Ryan mo ngi participer à beaucoup d'événements au niveau de ci game bi, mu ngi participer ay affaires yu bari, ñu ngi koy gis ci euh, affaires yu bari. Mais bo ba tey gisuñu nga ngeen tek ben produit au niveau du marché wala affaire yoy Donc lolu nan nga ko mën expliquer suñu internet yi. Waaw, xam nga ñun nak ñun dañu nek ben groupe bu nga xamanteni dañu compétitif lay wax. Parce que ñun bo xolé bokku nañ ci set concours, ci set concours de rap quoi té sama digg ne rappeur bu wóoluwul sa bop wala li nga mën non do bok ci concours quoi cest à nat sa bop la quoi yow par rapport ak ñenen parce que ñun dafa am ben slogan bu ñuy démé ñun dañu faral di wax que ne ñun dañu bëgg di défar luy luy tak, mais ñu di défar luy saxar loolu mom mo waral suñu temps bi ñu jël dans l'underground ñun bokku nañ ci ay concours yu bëri wane suñ bop fu nek amul fu ñu rabul fi ci town bi ñun comme ni ñuy wax ay alalu mbedd lañ quoi dañuy dem ci ay saifu di dem ci lu nek amul fu Malick di tàkkee te doo ñu fa gis xam nga léegi ce qui veut ko loolu noonu day wane ne benn consistance bi nga xamante ne dañ ko am ak lu ñuy def lu ñu mën-mën biñ ci am ak bëgg-bëgg biñ ci am te sama digga ne yàggaay boobu noonu ci underground bi amul pertement parce que c'est un peu de l'expérience nga ci acquérir acquérir ak confiance quoi c'est-à-dire da ngay gën a wóolu sa bopp yow jour boo yégee ci seen ñun ku ñu seetaan ñuy rab di nga xam ne ñii duñu gan ci li ñuy def parce que ñun duñu sax playback fu ñu dem live la ñuy def comme des fois dama koy faral di wax gars yi sax bu ubbi médecin naan ne don de sang concert yi don de sang ma ne ko ñun duñ dem don de sang di joxe ay ketchup deret la ñuy joxe quoi live la ñuy léegi ñun dañu toogoon benn année bu nga xamante ni presque lu mat un an bu ñu génneewul ay son mais n'empêche que chaque semaine dañuy jouer te bu fekkoon ne yow da nga ay son am na ñu nga xamante ni dañuy toog lu yàgg duñ dem concert ba bu ñu yéegee ci scène bi dañuy réer perdre seen repère yëpp ñun même bu ñu génnewul ay son dañuy jouer ay concert fréquemment ce qui veut dire que gars xam nañ li ñuy def gëdd bi ñu ko jox ak liggéey bi ko def loolu moom moo waral lii quoi. waaw si kaw loolu moo tax ma seet si leen sax moo tax xoole artistes si ñëw fii parce que on sait que ne vous êtes dans l'underground mais man personnellement man dama leen respecté quoi parce que je sais dama dajeeg yéen si spectacle yu bari donc loolu man mën naa ko témoigner mais tey jii nii li tax ñu ñëw fi aussi mooy dañoo dégg ne yéen ngi si benn euh, projet boo xam ne yéen a ngi koy waaj a génne xaw ma loolu loo leen ma si mën a mën a wax si benn projet boo xam ne yéen a ngi koy waaj a génne. waaw waaw ñoo ngi ci benn projet bi nga xam ne nii ñoo ngi koy waaj a génne bëgg nañ mu génn incha allah ci 2019 bi ñu nekk quoi ñoo ngi ci am léegi damay bàyyi sama waa ji moom moo ci gën a posé pour mu gën la expliquer mu gën a leer clairement xam nga affaire yi gën a leer ci jaab ñu waaw Lamine dama bëggoon nga wax ma projet boobu lan la wund ak li ko taxawal ak lan moo nekk ci biir projet bi lu ñu mën a xaar ci projet bi. waaw kay euh, xam nga xam nga benn affaire dafa am mooy li ma doon expliquer sànq que ne que ñun underground ni ñu ci yàggee noonu loolu ñun sama diikano du pertement parce que mënoon nañ def comme li gars yi def dem dajale benn cinq son wala benn pléter de pléthore de son bu nga xamante ni waxul dara génnee ko parce que ñiy génnee son yi ëpp ñu ñu xel dàqu ñu ñu rab. te ñun am nañ déjà studio bu nga xam mun nañ fa prise gratuitement te d'ailleurs ñu ngi installé suñu propre studio bu tudd Boutlar Music bientôt dina ñëw defar nañ lépp ba pare léegi possibilité yooyu gars yi am am nañ double bi ñun wala ñu am comme ñoom bi ñu yor mais affaire bi du génnee son xam nga lan mooy c'est à la fois gagner le respect parce que dañ naan euh, gis nga rappeur nga m dafa am lu ñu naan street crédibilité cest di dire amal crédibilité ci mbedd mi parce que sa respect boo ko ñàkkee moo virginité ñooy am benn yoon nga koy am boo ko ñàkkee dee nga ñun loolu la ñuy bañ a ñàkk ñun rabantu wuñu suñu son yi ñu defoon depuis 2014 ba léegi boo ci déglu day actuel day mel ni tey la parce que dañuy def ñun dañu am ci dañu musé wu ci benn affaire ce qu'on appelle double MVP loolu la ñuy def on fait une musique mélodique véridique poétique loolu moom mooy Fësël Ride léegi ci biir loolu noonu bëgguñu génne affaire yi nga xam ne dañ koy bazarder ni du jour au lendemain juddu léegi dee léegi duñ ko def dañuy liggéey ci benn projet bu nga xamante ne dèjà freestyle yi mu ngi commencé di génn boo xoolee comme ñun système bi ñu gars yi di adopté adopté wuñu système boobu gars yi dañuy ñëw fii génne benn affaire comme ñu jël ne freestyle yi nii la tudd Guédiawaye info ñu def Guédiawaye info 1 Guédiawaye info 2 Guédiawaye info 3 mais lépp day tënku ci ay ego trip man la man la c'est de l'ego ñun defuñu loolu ñun dañu ñëw changer conception bi ko gars yi doon liggéeyee cest dañu ñëw de un ñu génnee mbalitu kër gars yëpp ne wooy mbalitu kër affaire yooyu déjà titre bi rek dafa xawoon reetaan lu quoi affiche bi ñëw ne mooy loolu ñu defar ko son bu nga xamante ne ak niveau bi fu kawee parce que man damay am habitude di wax que ne ñun boo ñu bëggee topp foog nga wuti SL quoi booy yi lañ bëgg a jàngal bind. waaw ñun dañu yor bic dañu am bic am permis cest dañu mën a bind mën a dawal ci bic lu gën a raar rappeur bu am loolu presque am nga 90 pour cent pour nekk un bon MC ñun loolu lañu ñu am am nañu bic am permis mën a dawal mën a bind macha allah léegi. projet bi ñu ñëw génne benn freestyle numéro un mbalitu kër gars yi na wooy mbalitu kër foog ne ay 1 2 la ñu ñëw wiiri leen génnee mbettel ko mooy la surprise day nekk ci logique boobu ba tey def ko tem ce qui est man ba ma nekkee di dale di déglu rab ba tey suma dégg fii ay freestyle bu nga xamante ne buy pro annoncé projet bu nekk thème déggaguma ko boog man waxuma amul de mais déggaguma ko ce qui veut dire li gars yi gën a daw rab bu utile bi moo tax bu ma déggee des fois ñu naan non booy mais booy yi déglu ñoom ñoo bindul mais ñun dañuy bind xam nga

projet bi nak dañ koy liggéey mais day nek ben projet bu social lay nekk thèmes yi ñuy développé yëpp ay thème yu social lay nek parce que tay vocation rap bi deug deug liko ko taxoon a bi doon tek révolution révolution loolu mom mo dé ci game bi légui rappeurs yëpp ñom ce qu'ils font moy seet di nax sa bop dafa melni tay je vais te donner un exemple yow nga dem dugg ci ben boîte fekk ba lijjanti ben 5000 francs dugg lek ay hamburger ay affaire xam nga fekk yow yaa ngi jóge ci ben braque quoi léegi dès l'instant que nga génn ba taxaw ci buntu fi nga doon lekkee yooyu noonu loolu ngay affronter moom mooy nekk la réalité parce que fi nga nekkoon foofu du loolu ngay am dund boobu quotidiennement léegi ñun ce qui veut dire que vocation bi taxoon jug rab loolu la ñuy bañ a ba nga xamante ni ñun on va donner la réalité vécu quotidien lañ lay jox ñun suñu clip boo xoolee d'habitude 90 pour cent day nekk ay affaire ci ay quartier yu flottant lañ koy defee dañuy wax ay wax yi nga xamante ne day nekk li nga xam ñun bu ñu yeewoo loolu la ñuy dund ñun gëmuñu concept star parce que xam nga la mënuñu fi bàyyi biddéew yi di def ay nit star day amal gaam lay nekk biddéew yi ñu ngi ci kaw fii ay nit a fi nekk mënuñu nobody can be a super nigga fii si ñun mënul nekk xam nga léegi nag xam nga lan mooy wax bi mooy rappeurs yi ku nekk dafa am benn mission bu ñu tegoon sa kaw ñoom ñu dem jël mission boobu dëpp ko dem di def leneen léegi da xool comme li paxa di wax ci son mbalitu kër naan ni euh, naan jël xam nga euh, silib ak beeco bëgg ko jaay loolu man maa ko wax sans nu ubbil mbaarke njaay silib ak beeco bëgg ko jaay léegi pour ñoom boo demul jël benn xale bu xees benn piscine yor ay verre affaire yooyu rek yow defoo di rab non non non message ñun li euh, jamaïcain yi naan slackness ñun loolu la ñuy joxe on fait de textes mûrs yi nga xamante ne ay nit yu réfléchis ñoo koy génnee di ko joxe loolu la ñuy def loolu nag boo koy def longue marche bu la lay nekk une marche pénible loolu lay nekk mais tôt ou boo génnee dinañ xamante ne dëgg luñ ko dëgg-dëgg moom mooy mucc. waaw ok merci Lamine donc Lamine ñëw na si donc ñu xaar benn benn album boo xam ne ce sera carrément thème thématique ba pare di wax si affaire sociale donc euh, mën a fësal li nga xam ne mbedd bi mu ngi koy dund ak li nga xam ne seen quartier mu ngi koy dund donc je pense que looloo tax ñu seet si leen tey donc euh, l' émission tire à sa fin sur euh, Guédiawaye Info donc Lamine tey boo leen doon terminer lan la fësal raay di terminer tey ak ban message ngeen di bàyyi au niveau de suñu internautes yi ak population bi ak fi nga xam ne yéen mu ngi nii au niveau bassin beeg yooyu ak seen milieu bi tey lan ngeen di wax jeunes yi fi nekk muy message benn message bu fort bi nga xam ne waa fësal raay dinañ ko bàyyi suñu internet yi. waaw que man damay am benn habitude bu may lu may faral di wax jamono yi ñu nekkee au lycée di di jàng suñu surveillant bi bu euh, principal bi di mooy euh, bu proviseur boo musaan ñëw di wax. danaan la yow la kan nga ne ko man la diw mu ne la ban classe ngay jàngee nga ne ko lii mu ne la léegi nag looy wax tu vas endosser les responsabilités donc que chacun soit responsable de ses di et de ses actes dañu toll benn jamono bu nga xamante ne adduna bi ñun gis nañ mutation yi muy am ci nit yi ngay séqal àdduna sax dañuy am ay changement yoo xam ne des fois day brusque dal fa lay bett suñu dirigeant yi noonu ñi ñu jiite ñëpp mooy loolu ñu bëri dañu cuub seen drapeau yow yow yaay nekk nit bu nekk nga jéem a am benn state of the mind state of mind am benn état d'esprit bu nga xamante ne yow yaay xool li la arrangé ak li arrangé sa société nga doxal loolu quoi ñun ci loolu la ñuy dox que di wax gars yi que nañu xaar Feuseul Ride mu ngi ñëw from LGK business suñu label bi nekk Kër Massar di shout man nigga Joe Beat ñu ngi liggéey ak benn producteur bi tudd Cissema Damel en collabo moom moom moo géré tout ce qui est aspect pécuniaire c'est-à-dire weccet beeg affaire yi jëm ci produit bi mais ñun ñoo lijjanti liris yeeg bit yeeg affaire yi moment pare nañ pare nañ na gaa yi xaar rek tuuti moo ci des jëlaat kurus yi ñaan ñu ñëw te rappeurs nañ xam benn affaire instant yi moom xam nga amatul foo quoi ñun ñu ngi seen kaw te gars yi mënatuñ féex loolu day leer waaw copain yow lan mooy sa last word au niveau de émission bi si bi tiré à sa fin tey. waaw waaw comme ni mu ko waxee yaakaar naa leeral na lépp mooy li ñuy wax mooy na gaa yi xaar quoi na gaa yi xaar lu lu lu yéeme lu yéeme quoi leneen lu may yokkaat mooy ku ne xam nañu ci période eh, kii lañ nekk élection. xam nga dëkk bi laaj na dal quoi rawatina suñu suñu mbokk ndaw ñi quoi ñi nga xam ne jeune lañ comme nuñ bu leen dara jaral wala yenn affaire yu bu leen dugg si ñàkk fayda quoi yéen daas leen rek ngeen fanaanal xam ngeen li gën ci yéen quoi voilà di leen ñaanal jàmm di am mbégte ah, ci Guédiawaye TV nga xam ni mooy suñu house Yeah, donc tay ñu ngi won fi au niveau de Darussalam Salam 2 sur Guédiawaye Info donc dans l'émission, émission artiste ñu ngi fi won ak waa Fësër donc ñu joxé benn message bo xamné c'est carrément positif euh, jëmee ko ci jeunesse bi ak élection yi di ñëw donc euh, ñu leen nous jox dig daje bo benen yoon euh, restez connecté sur Guédiawaye Info mooy wa salam peace